dikkati na sëy bi dina am par force al Assane Sall ci tribune yéen a kaay ne lay def de diggante parti démocratique sénégalais ña nga ca lëngooy mbagg ña nga ca kottanteeg raayante fi mu ne bëggante nañ piir tribune yéen a kaay naan kon lu ca des El Assane naan kon takkub sëy sëy boo xam ne nag ba fase ba amee xuloo nan nag ba dem ca tribunal ba attante am ca APR naan kon jox ñu sunu téeméer ak fan ak juróom-ñetti milliards boo bëggee del si ci réew mi waa parti démocratique naan leen luñ leen yoreel El Assane Sall naan ak fanweer ak juróom-ñetti milliards yooyee mbaadu nag mooy doon may gu njëkk ga ngir takk amaat diggante parti démocratique sénégalais ak APR Mimi Touré ci le mandat yéen kaay naan ña ngay dil soxna parti démocratique sénégalais ci waa grand place naan ko Mimi noppil ñoo ngi ñëw El Assane Sall naan leen may leen ma rek ma yigli dama leen alxayri gaa ngi waaj ma ne la sëy bi diggante parti démocratique sénégalais ak APR ñi ngi koy bëgg takkaat ñi ngi bëggante la ñu tuumaaloon Karim Meïssa Wade ne da koo sàccee ci mi loolee nag la ñuy daal di lewal ngir def ko may gu njëkk seen diggante sëy bi mën a taxawaat Mimi ci le mandat yéen a naan man ko ma weddi sànku soxna parti démocratique sénégalais di fël seen musóor ci waa grand place naan ko mimi yaa ñuy tooñ ndax lu ñu naqari ci réew mi rek yaa ñu ko teg l' observateur naan man waxtu wa nga xam ne ña ngay sayal téeméer ak fanweer ak juróom ñetti milliards ngir takkee ko sëy day ña ngay lebi ab opération boo xam ne téeméer ak ñaar fukki milliards la nguurub Sénégal def beneen emprunt obligataire ci marché financier bu UEMOA kayor suñuy koppar naan dañoo bañ ab tension am ci koppar gi te Sénégal sax dëgg-dëgg nag lebam dafa neex ndax lànk luñ ko leb bi mel ni ku naan leen waaye yéen mbaa ça va saa si dey fa ngeen nu jëmee laa xamul Sud Quotidien daal dina ma doo yeggaleeg parti démocratique sénégalais tribune yéen a kaay ne ko faw ma laal gouvernement gi yéen juróom ñeen fukk juróom-ñetti milliards yi nga xam ne dañu koole bi woon ne dañ koo def ci projet daal di koy làq ci banque anamu ñu ne déeta waaye àggi bu sumaare ne leen daanaka juróom-ñetti milliards daal di ngeen koy denc ñu ne déeta waaye rapport yi nag ne seeni nit yéen dañoo sàcc sunuk alal turbine yéen a kaay ne wi nekk ci scandale boo xam ni maar day taali di sàkku nag ay explication élection ngeen jël seen bopp yàq ko yexeet ci bonne gouvernance goo xam ni woote ngeen ko saa si tembe nag bonne gouvernance yéen koy dégg yéen a koy gis waaye réew moom ay explication la ñuy laaj ay rapport yoo xam ne ñu ngi ciy tuumaal seeni ñooñ tribune yéen a kaay naan leen furaas daal li xidéem da ngeen ci sax jéemut ay pexe nag ngir daal di andil gindi askanu réewum Sénégal yéen a kaay bi dee média bi naan kon tegal foofu sa loxo agi bu sumaare day ña ngi koy menacé wel Sud Quotidien naan leen ña nga ca yoonu daal di boole l'opposition bi l'observateur naan kon dana metti ci président Macky Sall wala sud ne ko may ma rek booleeg opposition bi waa parti démocratique Sénégal dañ cee bëgg bokk waaye nag saa si tembe ñoom mimi la ñuy bañ mimi Touré ci la mandat yéen kaay naan leen ñooyey bañ ma ndax nag saa si tembe ñi ngi ci neexoo nekk ci tex tex may reegu métteeg président Macky Sall soxnay parti démocratique sénégalais ci waa grand place naan kon mimi yaa ngi nuy tooñ cay mimi yaa ngi nuy tooñ bu amee kenn kuy dil nag yow mii la ndax saa si tembe yow la nu yónni ngir nga yiddu l'opposition bi soxna ya naan kon mimi ba nga dikkee la diggante yeewi askan we wàllu Sénégal tas lan moo tax ban la fi cofalee IG ak tey laa ne la kenn tontuwu ca tribune yéen a kaay naan leen tontu leen ci 98 milliards yi tontu leen ci juróom-ñetti milliards yi tontu leen yéen waa nguur gi nag ci rapport yi le quotidien le quotidien naan kon nguur gi kay ña ngay tontu Hadjibou Soumaré ña ngay weddi ay waxam Dakar Times naan Hadjibou Soumaré day waxam ji boo maytul ci plainte lay daal di mujjee ndax nag moom premier ministre bi woon bii mu tuumal nguurug Sénégal am na nag ay moyen ngir daal di ci andi firnde ndax nag man naa andi firnde ci xaalis boobee naka la génnee Sénégal dem Paris ci ban banque la jaar le quotidien le quotidien ne moo taxit nguuru Sénégal mayuñu ko dara tontu nañ ko rax doole di ko menacé l'enquête ko dajee naan man en tout cas dikkam sooful agi bu loo ci manti dégg yi daal dina yëngal saa tembe nguur gi bés bi le jour daal dina ma ñeenti laaj la laaj moom agi bu tontu ko benn boo xam ne saf na ca sàppuwaay Abdou Karim Fofana mi yor kàddu gouvernement gi naan kon sa njortu gi ñaaw na sa kàddu yi salte na saa si tembe taqal président de la république Macky Sall nga bëgg waaye du amee ci réew mi ministre Issakha Diop naan kon Fofana may ma ma wax ñaari baat agi bu ndax nag moom loo ci manti déggit cadavre politique la ab PM par accident ci histoire la koo xam ne wax kotu lu ñaaw la yàgg wax lu ñaaw yàgg koo jëfe ku mën a taalum réew la jaxase ay doomu aadama la isaaxa naan kon du juddiwaat ci wàllu politique nga bëgg duñ la ko may moo tax nag nga dem xool fa mu gën a ñaawee nga sànni ñu yàq suñu der waaye duñ la ko may isaaxa naan kon santé politique nga bëgg du fi saabu bu élection jub see nga sànni sag bal ngir ñu xool la du fii ndax nag loo ci manti dégg wax ju ñaaw dëkkul fa mu jëm fa mu jógee la cosaanoo maire bu Pikine Est naan kon saa si tembe da nga ubbi sa gémmiñ fas yéene divertir Sénégal sénégalais yi loolu ci boppam lan la dul may critique yéen kaay naan kon en tout cas Moussa Sow moom mi nga xam ne moo jiite COJER ma nga naan président Macky Sall la mu woote ma ni la nan ci ne nañu def jokkoo ak Macky boole sunub doole bañ a xool kenn koo xam ne mag ñuy tàqale wala di wax ci ñun lu ñaaw saa si tembe unité la woote moom Moussa naan unité googee moo mën a tax ñu daal di écarter yeewi askan wi doxal nag nañu bëggee ak président Macky Sall Moussa Sow COJER naan ku dégg président de la république Macky Sall ca Sédhiou jëfeel te wax ji mooy dëgg tribune yéen kaay naan kon lu mënti amit jàpp leen gouvernement gu Sénégal ña ngay menacé Hadjibou Soumaré yéene kaay bi naan leen bu ngeen ca noppee mën na ngeen andi ay tontu ak i gindi ci lii ñu leen laaj critique yéene kaay ne ma Bougane Gueye Dany day ma nga ca tànk président Macky Sall di ko ne bien bon l'indépendant yéene kaay naan kon ndax ci dolli sampi laaj jëmale ci président Macky Sall le regard naan kon jiital gëm sa bopp kay dafa buux Macky Sall ne ko ubbil say gën ma wan la le mandat yéene kaay naan man Bougane Gueye Dany ma nga naan kon say service su gorogoro national naka la ñu mën a lebee lu toll ci juróom-ñeent fukk ak juróom loo xam ne nag amul benn validation bu ministère des finances dugal xaalis boobee ci réew mi nga ni yow président Macky Sall yëgoo direct news naan kon dafa neexul wax de waaye ku gis nen dëgg-dëgg ni ne a ngi juróom ñen fukk juróom-ñetti milliards yooyee ana xaalis ba ndax nag ci lu leer ci lu leer laa ne la la bugaan gay dani ne dugg na ci réew mi ab banque bu ñuy wax ASG UK Limited lan ko dugal ministère des finances gisul xaalis bi te Mansour fay ci boppam xam na fu xaalis bi ne lan moo tax nag Mansour xam fi xaalis bi ne ak fañu ko làq te waxu ko yéene tas daali xidéem kenn yeeyu ci yàbbiwu ci kenn ŋaangu ci te la askan wa bëgg rek mooy leeral ndax scandale bii nag dara gënu koo rëy direct news naan yi ci boppam interpellé nañ leen ci nan ci wax moom bugaan ci la mandat yéene kaay naan kon président Macky Sall dama lay fàttali léegi ndax démb yàggul fàttalikul nag say woote say yuuxoog say ñaxtu sa tiitaange keroog ba nga xam ni président Abdoulaye Wade naroon na la dugal kaso yow président Macky Sall fàttaleekul sa ñaq wax nag sa coono gi nga xam ni yaa ngi ko doon daj ngir xeex injustice yow président Macky Sall fàttalekul sa xeex yu metti ya ngir Sénégal nekk ci njub yow président Macky Sall fàttalekul it sénégalais yi nañ la gàttandoo nañu la jàppalee woon ci xeex Abdoulaye wàdd yow président Macky Sall fàttaleekul keroog ba nga xam ne nee nga da ngay jëlee président Abdoulaye wàdd mii ca pale ba fàttaleekul ba ngay woo xale yi naan leen nañu xeex ndax bu ñu xeexul Wade du fi jógee lii ma lay wax diggante 2007 ak 2011 la moo ne day kenn mënta def bilan Abdoulaye Wade te boolewu la ca waaye sénégalais dañu la koo baal tooñ gan la tooñoon tey jii nag yaa ngi ci nguur nguur nag mel kuy jaxase xel di bilimbaane nga fàtte lépp loo xam ni Sénégal dajoon na ko ci yow tey jii ñu naan laan sab nguur am nañu ca ne di lëndëmal sénégalais yi di jël seen xaalis di ko luubal sénégalais yooyee nga xam ne ñoo sonoon ca yow ba fal la ñoom la ñuy jël seenu moomeel nag di ko làq di ko denc ñu interpellé la ci nga ni Thiel Sall génnal wax ndax Thiel it wax la l'observateur naan man Sall ngaari lam tooro bur géde day ña ngi koy tuñtuñalee fu ne ñi ngi taxawal na ab plateforme boo xam ne xeex troisième mandat moo ko tax a jóg diggante Bougane Gueye Dany Yewwi Askan Wi ak l'observateur naan man plateforme bii mooy xeeb xal mu lakk sa daay ndax nag piège la ay ndëgg sërëx yoo xam ne ñu ngi koy tegal sàll de boobu it ca Sonacos lu toll ci junni daanaka ci ñoo xam ne dañ fa doon liggéey daal dinañ leen di dax ndax nag liggéey woo xam ne doxatul Le Soleil yéene kaay ne ma sunu gaynde yi amati nañ ndam ñi amagul ñaar fukki at laay waxal tribune sport naan kon ña nga ca final ca kaan seenu catégorie ni ki démb nag Tunisie ci boppam la ni ko demal toog sunu lamb daal dina kaay nag ma leeral leen lenn diggante Sa Thiès ak rëg amagul victoire ci semaine bii daañu ko widee waaye ba tey Maysa Ndiaye ne amul benn ndam loo xam ni CNG jëla gum na ko jox ko Sa Thiès l'observateur daal ne man tus baa ngi borom këram moo am laam-laamee ci ëmb bi naan soxnaam doom jii nga ëmb juruma ko soxna si ba mu nee dafa jël doom ja daal di faat yoon it daal di koy teg loxo ak lu mën a am mbokk yi dañu ñaan jàmm te yéen doog jàmm. noonu si suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar ci réew mi ak ci bitim